jërëjëfati seexul xadim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. seen mbokkum taalibe Fallou Galass Syll dellusiwaat na di feddliwaat ak cantam ci sëriñ Touba di ko feddliwaaleel murit saadix yëpp di gën a joxaat suñu bopp sëriñ Touba tey gën di bëgg ci mboom suba ak ngoon. di wax ne li Samba Diarra Mbaye waxoon ne lu may lëjal nga ne ko cas sànni ba dootu ma ko jis baa nga labal ko mu ne mes ki ma jiital gisee la mat a xam. mbokk yi barki Dembo Ndiaye la Moussa jóob yëkkati woon ay kàddu di wax na ilaa Touba bi dañ ko war a def ilaa Fuuta ndekete moom day dem bàyyi fi ilaa Touba bi la laata mu ko yóbbu Fuuta sëñ musaa gisal sañ Touba bu baax a baax waaye xoolaatal sëñ Touba waxoon naa la ko fi nee naa la sëñ Touba noonu ne kuy léewtoog man sun borom ngay léewtool biraasu man baara zeni biraasu man yu baarisul muntaqimal baari saman yarul te yar say morom yow yaa doon wax naan ilaa Touba bi barki Dembo dañ ko waroon a daj yóbbu ko ilaa Fuuta ah sëñ Moussa <laughs> yow far nga fi bàyyi ilaa Touba bi di foo jëm ilaa fan nga jëm <laughs> mbokk yi sëñ Touba ngi noonu moo tax may leen jërut xulool jërut xeexal kuy léew toog sëñ Touba rek bàyyi ko rek zullu lazi yubaarisullaah al jalil sullu salilin fawqahu kullu salil alhamdulilahi rabil alamin ndagam Moussa jóob dem na bàyyi fi ilaa Touba bi maa ngi seetaat ñeneen nag sëñ Ablaat noonu woon sëriñ tubaa moo yaral boppam yaat yat wi jaan ju fi mat ba saamaan ba yaakaar ne koo mattu bu gumba po koo buusu mu dee yat wi dal nga faatu ñuy xaaraat yeneen jaan kon yeneen jaan yi jóg leen sëñ tubaa ngi fi moom musaa moom yaru na maa ngi xaar ñeneen ñi ci des kon ñu bokk waajal màggalu Touba ni ko Cheikh mun taxaa diglee ma murit yëpp màggal si te murit buy ñëw mu takk masque ndax li ko sëñ taxaa takk jar na murit yëpp takk takk masque wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.